la Macky Sall di jiital yéenekaay gi na Thérèse Faye am na lenn loo xam ne waxoon na ko Macky Sall sa pale ba neewoon na ko Macky soo demee kan nga ñuy bàyyi la waaye nag laaj boobee nga xam ne Thérèse Faye laajoon na ko Macky Sall ba léegi gars yi ñoo ngi koy laaj yéenekaay gi nee na juróom-ñaari weer moo des ci yi jamono ji dara desitu ci te ñi nga xam ne ñuy waa benn bokk yaakaar mbir mi lu mu gën a gaawee maanaam gën leen a li am ba des tamit mooy ñëpp jamono ji Macky la ñuy déglu yéenekaay gi di la sa xëy di ñu xibaar naan mi nga xam ne Macky Sall amoon na ko ak ñi nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar yi na nañu ko carte blanche nee nañu ko Macky sa cëgul guyi maanaam yaay xool ku la neex nga daal di koy jiital ñu daal di koy jàppale waaye nag am na ñenn ñoo xam ne ay allié Macky Sall lañu waaye nag joxuñu ko carte blanche maanaam ku ci mel ni Cheikh Tidiane Gadio ak Modou Diagne Fada yéen kay gi di Vox ñu xibaar naan ñu nañu yàgg ci lu jëm ci candidature benn Bokk Yaakaar bi ndax juma ajuma soreetul yéen kay gi di la témoin nee na ndaje mi nga xam ne Macky Sall amuloon na ko ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci benn Bokk Yaakaar lu toll si juróom ñent ci waxtu yoo xam ne toog nañ di ko waxtaane maanaam lu toll ci neuf heures de temps lu toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci orateur maanaam lu toll ci cent quatorze orateur maanaam ñoo jël kàddu yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba des la jamono ji bëri ñoo xam ne nee nañu candidat lañu ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la am na lu toll ci fanweer ak juróom benn ñoo xam ne nee nañu candidat lañu waaye nag bi ma ngi xaar yéen kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu Macky bi mu ne du xam ne moom la ñu nekk ay ñoo xam ne ñu influent lañu ci wetu Macky Sall loolee moo jaaxal waa journal bi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu APR ginnaaw bi Macky Sall du nekk candidat jamono ji mbir mi dal na waaye nag du ñu fa mujj ci ak pëcc xoolay mujjee ndax jamono ji gars yi def ay combine xool ñi mën a ànd ak ñu munta ànd bëri nay yoo xam ne nag ñoo ngi koy ne Macky Sall ñooñee kenn si ñoom dina ko sampo ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Amadou i cadre ci seen bopp top départ la ñuy xaar yéen i kaay gi di Sud Quotidien nga xam ne moom la ñu ci diwaanu Fuuta nar nañu faa gis maanaam ab jàmmarloo boo xam ne bu tar la diggante ab milliardaire bii di Arona ak ki nga xam ne mooy Farba Ngom ndax xam ngeen ci ayu Macky gi yëpp Farba Ngom ak Arona ñoom ñaar dañu doon giite ngaasa te nag am na ñenn nañu ki nga xam ne mooy Arona Dia Abdoulaye Daouda Diallo mooy candidat Ousmane Sonko mooy problème bi waaye Ousmane Sonko tamit mooy solution bi yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu mouvement doomu daara yu Pastef ñoom doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag nee nañu Ousmane Sonko la ñuy investir maanaam quinze juillet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax nee nañu candidature Ousmane Sonko loolee demande sociale la ñi nga xam ne ñu benn yoon a dialogue ak Macky Sall waaye nag nee na bala à terre la ñu soxla maanaam ñi nga xam ne ñu daal koy teg ci suufa yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy dañu xibaar li nga xam ne moo am ci diwaanu impôt ak ci diwaanu domaine journal bi nee na post yu neex yi post yu neex yi ñi nga xam ne ñooy APR la ñu koy jox waaye nag bu dee waa Pastef ay radiation maanaam di leen di dàq ak di leen di yóbbu frigo ak di leen di yóbbu ca kasu ba yéen gi de enquête ci xën mu njëkk mu ñu fekk fa général Moussa Fall mi nga xam ne moo jiite gendarmerie bu Sénégal ñoom dañu doon amal ab cérémonie doon wax ci lu jëm ci wàllum jàmm ak wàllum sécurité kaaraange askan we waaye moom général bi daan nay wax ne jamono ji nag danañu gën a gis ay violence yu yees yoo xam ne mooy am ndax jamono ji gis nañ ne nit ñi dañuy gën a exigeant ci ñi nga xam ne ñoo leen di gouverner maanaam li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg lañ siy gën a xaar seen tànk tubay te nag li nga xam ne askan wi ñoo ngi koy sàkko ci lu jëm ci wàllum sécurité général bi nee na dafa daal di laaj am ay changement yoo xam ne jar na ko si amal ay Walfadjri yéen kaay xëy dañu xibaar naan ñu lu toll ci ñetti téeméer ñoo xam ne ci Sénégal gii la ñu jóge woon ngir dem ci bitim réew Barça wala Barsax boobaak léegi mën na ñaari semaine Kafountine la ñu déparé si ndox mi turbina nee na ñi nga xam ne ñoo réer ci ndox mi maanaam dëkk bu metti moo tax ñu jël gaal gi yéene kaay gi di Sud ne ñoo nekk Gaston ji sonn nañu ba mara détaillé démb doon nañu amal toogaanu ñaxtu ndax ñoom nee nañu jamono ji amuñu ndox ca université ba waaye tamit seeni boursu kenn fayu leen ko yéene kaay gi de Libération xëy yóbbu ñu diwaanu Kaolack nee na askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci quartier bii di Kasnack ca Kaolack ñoom jamono ji sonn nañ ba mara détaillé ndox mu bon mi nga xam ne moo fay balee moo leen sonal ndax système évacuation ndox bi moo yàqoo ndox